toll ci quarante cinq wala quarante huit ci ay quotidiens yi nga xamante ni nii ñooy euh, publier chaque jour te des fois sax dañuy am ay conviction ak ay orientation politique am nañ ay chaîne de télé ak ay rajo yu bëri ay site web yu bëri yi nga xamante ne ay émi dañuy def ay émission yoo nga xamante ne nii ku nekk day wax euh, ci wàllum politique loo ci xalaat ak yooyu waaye nag loolu mosul soppi dara ci lu jëm ci wàllum liberté d'expression euh, waruñu sax itamit jaawale lan mooy délit de presse wala délit bi nga xamante ni liberté d'expression nag warul yàkkal benn yoon eh, keneen ki am nañ droit am liberté d'expression waaye itamit am nañ droit itamit respecter li nga xamante ne ni moo jëm ci wàllum loi de réglementation yi le waaye itamit euh, garantir euh, nekkinu nit ki ndaxte nit ki boo ko waxalee lu amul wala nga waxal ko li nga xamante ne ni defu ko euh, loolee nag day génn bu baax lu jëm ci wàllum éthique ak déontologie bu nekkee loolu nag la ñuy wax je pense que Sénégal jóge na foofu te itamit ay classement waru ko yàkkal ndaxte gis nañ ay médias internationaux yu bëri yi nga xamante ne ni ku ci nekk am nga sa local fii nii li ko waral nag mooy ñu bëri dañ leen a dàq ci seeni ay dëkk kon nag euh, ñooñu dina dëng torop ñoom ñuy wax lu jëm ci wàllum liberté d'expression fii ci Sénégal kon nag classement boobu lu ñu war a xoolaat la.